الذي رفع السماوات بخير عمل الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفءا احد والصلاة والسلام على رسول الموحد سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الأمة wa ridwanullahi akbaru daimi alladi abad yatajaddadu ala abdihi alqadimu alladi kaana iyahu yuxid wa yusannidu kulla musbikin musallisin wa radiyallahu taala anhu kama jadaluhu bi xayri madad bokki jullit yi sang yi ma bokkal jataay bi kilifa diine yi imaamu quartier bi notable yëpp cheikh bi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu maa ngi nuyu jullit yëpp ñu fi teew ak ñuy dégg sama kàddu te di leen siyaare ngir yàlla ak jëmmi lislaam mi nu boole te dajale nu fi di beral nuyoo nag kilifa yi ma bokkal jotaay bi rawatina ki sabab ñu daje fii te ndaje mi solo lool ndax dundal lislaam la dundalu bokk la waxtaane suñu diine la waxtaane jàmbari lislaam la waxtu dafa sori timis soreetul bëgg a profité rek mënu ci wax ci yu may yi mu def ko ndax du ñu bari ko day tur du ko yàq euh, maa ngi nuyu di sant Mbacke di Serigne Mohamed benn ci nuyu taalibe yi boo ko tuddee li ñu wax ci moom lépp dégg naa ko ak buy jëw mu baax ko waaye loolu day dem rek ci seen maam ji Serigne Touba Xaadimu Rasuul maa ngi nuyu mbokki jàngkat yi rawati rawatina sama kilifa gi yëkkati woon xasida gi léegi te mu neex lool te doyalunu maa ngi nuyu imam bi nga xam ni diine la fi nekkal di Serigne isa di ko jox wàccuwaay bi ko yàlla jox waaye itam di nuyu doomi ku tedd sàmm ba Cheikh Abdoulaye Yaqin radiyallahu te muy soxna Bintu waaye magam ju baax ci toogee jotaay bi it ñoo koy siyaare di ko yóbbante nuyoo bu ànd ak siyaar di jóge ci suñu xol jaarale ko ci sa xam bu baax bii nga xam ni ñun jullit yi daje tey di bokk xoolante rek te yàlla tax jaroon lu daje kenn ku ne war a fay sa morom moom yàlla baax ko ba loolu jaar ci moom mu dajale lu lii te dajale mboolum mel ni te lislaam tax jafe na. bari na lu may wax fii la sol jamono ku am jom amoo jàpp ma sol rekk la njëkk a jàpp solo rek nag nit ñu bàyyi ko ci gox yu wutee nga woo ci lislaam te woote ci lislaam te yàlla tax léegi bareetul lu tumuranteel yaa ngi xool tànt bi mën na woyof ci kaw waaye na diis ci biir ndax yàlla tax suñu borom mi ngi wax bu kam min fiatin xalilatin xalabat fiatin kasira bi ismillahi wallahuma sabiir moo tax Sëriñ Mamadou maa ngi lay delloo cër bi la suñu borom jox jaarale ko ci Xaadimu mu jaar ci jàmbaari diine ja Cheikh Abdoulaye Yaqin Diop Mawlana muy cër bu la sunu borom jox man dégg naa léegi ku seede ci yow ci ay bernde ak looy def sa bopp looy defal sa bopp ci ay bis bi di ko waajale màggalu Tuba waaye loolu benn baat rek laa la ci wax muy wax Serigne Tuba ma dugg ci li ma tax a jóg muy maa ngi ñaan rek ñëpp rek. dana doon leen déglu ci suñu biir rek. Ah. benn baat rek laa ci wax muy li Serigne Touba waxoon ni kenn defulul kenn dara kenn defulul kenn lenn lu waay boppam loolu neex na dégg sëñ saa gis nga suba boo jullee timis ci jàkk ji imam génn jënd ci bitig bi sàkku ceeb saraxe ko dafa loo ko seexoo ba la wala sëñ Mamadou wa mii toog wala sëñ Mamadou waaye sa bopp ko defar يوم تجد كل نفس ما عملت من خير معطرة وما عملت من سوء gis nga dañu naan nangu jël na cëru bañ bañ jël na cëru nangu mën a jege nangu bëggul cëru bañ xool seen lu fal na moom seen tubaab bul sori kay bëgg na cëru ka bañoon bañ mënta am cëru nangu rasulillahi alayhi salatu wasalaam ñi ko toppoon ak ñi ko nanguloon tey sahabatu kira ndax abubakar yam na teet omar ousmane ali xoolal kàllankoon ni ko tabat yada ba alquran tabat kon nangu cëram la jël bañ cëram ku wax ji na fi bokk ci Thiès Serigne Touba day yónnee am ñu gan du ma la doon jekk naa ba mu génnee la am rek de sànq yàq lu Ibrahima Maodo lu gudd la. keroog de sànq mu laa dara Maodo waaye bii baat day jaral na nangu ba mu koy naan faalam bi am na ca indi suur di dal abadan ci thème bi lay maa ngi ñu ko. ne la wóor lii wala Sane Ndiaye man Seexul Xadim gërëm naa la ak dina gàllankoor bu sàkkee ko ko ci dunya boo xaar kon nangu jëm ci waay. kon Serigne Momadou loolu interdiction la ci lii nga nangu l'islam di ko def di ko jaar ci Serigne Abdoulaye Yakhine Samb ba ñu jaar ci Cheikh Bamba Khadim Rasoul mi nga xam ni lépp lantinoor la lay jot bu ko dox Serigne looy bañ sama jot ci bul ko ko dox nga tànn thème boo xam ne nag bu yaatu la bu mat a mooy thème sax bi jëm ci thème yi bu la neexee te jamono laaj jamono laaj ko rawatina fii nu toll muy lan muy tawhidul ilaahi wéetal sunu borom ak naka la ko Sëriñ Tuubaa bindewoon ak njabootam muy lu am solo muy loo xam ni ah, su amul dara du baax yéen ci yëpp. loola taxul ñu yónni de baat boobu rek a tax rasulullaay root ci jaas na lu wéetal yàlla ñu ne ko du fi jib mu nekk ca gaaya ñu ne du fi jibe du ma la dëbbal du ma dégg sa kuur aywa ak laa ilaaha illa loolu rek ila kalimati sawaa'in baynanaa rek moo ko indiwoon mooy kalimatu tawxiid taxoon sallallahu alayhi wa sallam maa ngi leen di dégg bu baax. woote mu nekk ca gaañ a gàntu ba ni ko du fi ñëwee waaw duñ la dëbbal duñ dégg sa pour yàlla ko bi mu naan wax lu baat bii nga woote tey jamono ko gis nga Cheikh Bamba dafa wax ni taalibe bi li mu war a njëkk a def sàkk ko ci yóbbal mooy am tawxiidul ilaah awalu waajibin la wax alal muridi taxsilu saadihi min al tawxiid loolu la war a njëkk a def su amee lu dee ko baax bu amul lu di ko tawkiid Sëriñ Tuubaa lu ma sa defoon mu wax ko rek waxdaaniyatu rabbi la ci jublu loolu dana feeñ léegi ci ay waxam te lim ci bind daa bari euh, imam Ghazali moo tax jàng téeméeri jës boobu yëpp téeméer ak fanweer cindi déeg maraaxibaat foofu say nekk yooyu yëpp baax na waaye daje mu mel nii waxtaan ni diine itam baax na jàngale tawhid ba lu dikk mën a tegu ca kaw muy fondement bi mën a téye lépp baax na sinon rek tegu daal. imam Xasali yi dafa jaamu yàlla ba borom pexe yu bëri yi dikkal ko kay di ki Sëñ Tuubaa jàmm borom pexe yu bëri mooy Iblis bi ko wax ni ko yow pare nga àgg nga ci man loo bëgg lépp dinaa ko defal loo defal ci daganal laa lu ma arabal nee na yaar laa tax taw it am solo yaar parce que am na daayira ba ba fu dul dee suñu borom moo lay jël en charge ci dara ji boo fa yeggee passé na yàqule ina ibadi sultaan foofu pare nga kenn mënatu la yàqal bu ko dugg ya'muruna ma yashaa wa yuthabbitu wa yu'umul kitaab diggante bi yu ne mën naa xew moo tax ñaan di nangu di fomm di nangu di bi ba yegg ca fa nga xam ne bu fa eggee ñu bind ko fa dul ci fomm même texe day am. am na xës bi yii bu ci Serigne Touba ne ku ko am ba jàng ko benn yoon texe nga texe goog texe bi dut ci teg tege mën naa la ci jox benn rek benn rek muy sama sëriñ muy ak sa zawudu nee na laata may pare ñoo li Jibril ñëw na ma sunu borom ne may nañ la ci biir wa min ma busira bokk na ci sax la ci li nu may an nazimuhu ki ko taari am na xaar yaa ku jàng saa yi ne saadatan la taxaw baada am na texe boo xam ne texe bi du ci te du gis mun kii du gis nakir wa xayru ak yu dul yooyu ak yu dul yooyu ma nga ci tarjumaan bi ñu jàng rasali bi ko iblis iblis dafa bon te yàgg te bari pexe bari xam-xam topp na maam Adama ba nee ñu xam nga kenn ku ne la nga bëgg ca bu taw it amul rek mu daaneel la bu taw it amul mu daaneel la bu dee alal nga bëgg bu dee jigéen bu dee daraja bu dee xam-xam loo bëgg lu nekk da koo bari le da la koy jal ca la lay nee ñu bu la maw siira ñu ni ñu ngi jaar àddama ci awa dafa ñëw jàpp ci loxoom ñëw ci benn sànni àjjana mu xool takk nder ba mënu ko su wujjuwee la dencal garab bii mënu ko nga ni ko waaye mënu ko neel sell na sa xol sedd ci la ñuy reer tey mag mu waaw ah, waaye jógal waaye mënu ko déet Sadio mu ne ko mani xam naa secret bu yàgg tey di cër ñuy reer mani ku bari pexe la ku saay saay la topp ko ba mu nekk fatafixa xam nga lu ci mujj surtout euh, la arab léegi moo tax taw it am solo nee na téere yi nee ñu Muhammadu góor ak jigéen maa ngi ñëw xasaay lii laa nekk di tiil ma loolu fexem iblis nee ñu góor ak jigéen du ñu wéet mukk te déeyu ma ko góor gi iblis déeyu ko di ko waaye sàkk ko waaye sàkk ko waaye proposé ko nee na boo nappee ndaw si ndaw si déey ko di ko nangul nangul li tax mu bon njaaro sax ki ko def téere yi nee nañ da koy sàppali da koy dosé bu doon bànneex ba diis la da koy def sax wala rahim alhamdulilah rabbil alamin sant naa yàlla dool la ma ko sant mohamad abdullah yaqin mii tëdd fii ko man ne da nga jóg bay doxaat rek beekee ma weddi ko waroon naa ne la ne nga ak ak wante ko ak ko abdullah yaqin borom ñaari ñaari ñaari njabootam gi nga xamante ni ñoo bëgg soxna Salman ay dara ñëw na ba sama kër ni man Ndey Jóob man ko ay gara mun ma wax loo bëgg ma jox la nga wér sama xale yi wéet nañu jaaxle na amatuñu ku naan ndaw fu ñu dem yow lañ daan àndal yow lañ defal lépp léegi fu ñu dem ànd ñëw donc ni toj toj cee rek soxna Ndey Jóob loo bëgg ma jox nga wér waaye ma ne ko dara bu ngeen ma ñaanee ay dara ma wér. waaye ma ŋàpp sama beegar kan naa dinaa doxaat ba ŋàpp sama ñaari tànk ngir yàlla ak Mouhamad Abdoulaye El Yaqin mii nag la ilaha illallah لدرو آمنا رسول الله يونن باغ جنانا سركوري سرفي سنا léegi yu kenn xamul te ceeb yu ne wax dëgg yàlla looloo nag moo dee taalibe moo sax léeg-léeg dafay am gàcce loolu taxul yoon wi jóg de wallaay loolu taxul yoon wi jóg diine éducation la nga doon éducation la civilisation euh, vraiment kontaan naa ci li nga yëkkati euh, njëriñ li ne ci xasida yi nga yëkkati yàlla wasaare ji place place ñëpp ñu jàll. boobu ma sax di dellu si ci détails yu bare bare bare waaye danaa dund yoo xam ne man xam naa ne loolu laa dund ak waa Kër Sëñ Ablaye. sëñ ne fii wax naa ne li ñu def fukkeelu at ak ñett ñi di ko ñuy dox fii ci kër Sëñ Abdou Lahad waaye arc-en-ciel ba ma koy def ñëpp xam ne Ndakaaru laa ko yëkkatee ba mu sotte ndax bu mën a sol soxlaanoo ba mu fees xam nga loo mën fa nga def sama soxlaan ngi toog seedal waaye ba ma ne bëgg nañu ku leen jàppale ci Thiès ndax fa nga bokk dem nga mbooloo damaa doon ñëw Thiès lu ma am ci lu baax rek Thiès laa ko mos a indi lu ma am ci lu baax Thiès bi laa ko indi facilmente alcune dei problemi. Niam na ipa poti boko jok pasa, boko jok mango. Amna jok kada bibi bibi di dale, sa dia dem binyane ojas. Na kaya ka wala lokaw. Nenum awal jurde, mo njette nyaw mabietu pai aselem, mo kamno. mau fekka mo togo mo la ko jok pasa makko mo ana ayot ndey sa ma to pai mo ko bani. Mo ko yori bo dem makko. Mwenye sant Ablaye Bakh waaye dina gërëm moom di la untuk lebih mu jox la bii mu dawalaat di génn pexeem xam nga seede rek aw yow nekk du ñoom ñoom sax ba li jënd benn bii na yow tu taay bien leen di seetale ak am na seet nañ sax yeneen feneen waaye léeg-léeg nit ñi danañ jaxase jaxase ba boo deful naan sax sa na yàq sa la sa man lu ma am lu ci baax rek kese lay làkk muy sama fierté ndax si bi mu ñëwee ma seetal laaj woo xam ngeen ne laaj yêu, yêu thì một cái kia, Kapasan tundumal, jaj, én jó szállni, ma persze, mely kéri az állán rámagyarek. Ennél ma kis nem menni csíkét, mákolok bájam ki, de én nyilv nyolod, fogni fi elfelek, én nem itt számi fáradjánia, fénylét egy oktérvizsna, én vitén én nyilv én is, kentó homadon, szóval házat, kentó, pentuládó, mám jén, pas man fiába. nee na la gis naa ko xam ne la ma ko wax ma ne Marka li ma li ma gën a neex nga wax nee na ma asalaamaaleykum laa fu ma ko dégg sama xel jaww dem loolu kay mooy xelam si yàlla lay def ndax moom moom asalaamaaleykum moom moo ko ba ñuy wax sax boo ma ko tekki lu ma xam baax ñu wax moo tax am na solo moo tax ma ci ñaambaas loolu di la xamal man lu ma mun a musa am ci lu baax rek fii laa ko samedi bu dee maa ngi fi ba heure bi laay soog a ñëw bi lay des dimanche ba damay si naa am naa fi donc loolu moo nekk lu am solo dana tax nit dana góorgóorlu euh, al ustaas li mu wax ci ndimbal yooyu baax na ñuy dimbalante biir am solidarité ku mën a tare sa morom na ko dimbali te yàlla tax xam nga bis dama ñun xam nga politiciens yi lu ne la ñuy digal dafa am benn euh, nit dafa mos ne ma benn sëriñ dama na nga saraxee juróom-ñaari kilo yi yàpp nga def ko sept mbuus bu dee un kilo nga sarxe ko boo ko sarxee dana yoonal seen mbir ma ñëw ba di am lu may jënd sama xel dem ca loolu moo xam ma ñëw ci boucher bi daal xeet ñaari kilo mu kilo bi ne ko euh, euh, mu ne ñaari kilo mu defal ma ko ma deux kilos jàpp kese xaar ñëw ba dugg ceeb jaar ci benn bëri na ko jaay ma quatorze kilos ceeb. danga def ko sept mbuus mbuus mu ne deux kilos muy ñaari kilo yàpp ñaari kilo ceeb ceeb mu ah xaaral ma gàll ci am 1000 francs ñëw ba ci hôpital régional bu Thiès bi fii su booba meera ngi dund dama daan jëndal ay fruits ndax da ko bëggoon boo ñëw foofu laa ko as ndaw di ñëw ñëw ma nga ci rétroviseur ba oto ba mu tolloo ma ma ne ko ah, sama jigéen ma ma ne ko ah yow de man la ko yéene mbay ka ju ñaari mbuus mbuuru yàpp bi ak mbuuru ceeb bi jox ak mille franc jox waaye sama ne sama sax rek man pare ci xanaa di di xaar xéewal yi ma di woon ñu dawal ba mu am 4 mois ma ñëw ci benn boulanger bi taxaw di jënd ay keek ndax suma xale di suma rabbi di ko bëgg suma ñëwee fu may ñëwee keek ndaw si ñëw fekk ma taxaw ma ne ma salaamaaleykum wa rahmatulah waa sëñ bi dafa baax xam nga waa kanam gi de am ngeen laa moom ah yéen politiciens yi loolu ngeen wax ku leen xam na nga xam ngeen naa kanam gi de xamu leen kenn mu ne ma yow nga am sa def loo xam ne li nga def xamoo ma ne la mu sama jigéen xam nga ban heure ma ko jox ma ne ko déedéet mu ne ma trois heures et demie nga ma ko jox booba aw añu ma te yàggaguma ko fenn. mu ne ma damay bu ma jógee ba ma toogee kër ga ba coow ma xale yi jooy damay ma solee mbedd mi ba mu ma sol ba ca ba ni ma tombé ci moo ma jógee ci yow li ma njëkk def mooy dugg ci boutique ba jënd as ndiwlin jënd as pooba jënd as soble ñëw daal taal baax baax ba jàpp nag soo ci la ba mu fees mu daal ko lekk ne lekk ba sa biir fees alors loolu gisee ma di ko nekk parce que loolu man boo wàññi ma dara na naa waaye mën a dimbali te yàlla tax na ko def ndax fu mu toll man xam naa mooy xëy woo xam naa mooy mbiri jot nga diñee xam naa lan mooy diñee ci say sëkk sëkk moo tax koo mën a dimbali nga ko dimbali te yàlla tax te lan ko defal bu ko xew moo tax li mu wax na ci wàllu dimbal lu am ko te it kenn bañ a xeeb dara ndax ku ne am lu man lii ngeen defal lii ngeen ma defal lee mënuma ko ngeen sagal ngeen ma booba de yéen a ngi am na conférence am doon ñoom ma tas tam ay boobu ñu tëj ñu toog seen jëkkër ngi leen di xaar ñu ngi tiim seen i sëb fii gone ñëw fi ñii euh, seen maanaam wax na seen pas-pas ku nekk ci àddina am na lu mu mën ma dama ma ne maanaam defoon nii def nii ma jaay ma am na solo loolu laa ci bëggoon a sànni tuuti di leen sant bu baax di leen gërëm bu baax. yaa tam ma de. man sonn bi xayra xadim al mustafa fa innani ahdim bi mustafa ودهته قبل مدى لمرولي مدى وانا عن مثله كل ولي مدهته مدى لدى ما ينبى ما ليوبي وكفى شنبى الكلمات ردي عني سته جيلاني عليه رضوان لسي الأغلاني ردي عني سته بلا سنا عليه رضوان يغلب الأزل ردي عني سته تيجاني عليه رضوان مبدي بالجاني ردي عني خلق عني يرضى فالكريم عني ردا ليس يريم جسى الإله المصطفى خير الجزاء كما تقبل عدفا جزاء صلاة من كرمه يلخاني بني نيو نبتو سير عبد الله اليقين ci karamu soxna bintu mi nek ci tante bi ak ña nga xamne ni ñoy njabar gi njabar suñu suñu da yaqin jëpp soxna Salman ak xalifa bi ñepp di len siar mi nga wax rek bis bi ñom ñoko mom ndax ñom dafa Serigne Touba tek ñu ñu nekkal fi Cheikh Ibrahima Fall nekk bu wër kon ñom ku len fi romb di dem gi ngir ngir la len di ak la wuti ngi ci ñom kon ñom bu la seexalee si cax gi seggul bu dëggu la ñu ngi ñaan sunu borom yàggal la ci bis bi nga yàgg koo taxawee liñ ci bëgg lépp ci saay rek baatin sunu borom defal la ko ci lépp dernier yeeg yépp rek ak mbob mbooloo mi daje safwante ñëpp amante jàmm toog waxtaanee eh, weer yi di safar nga xam Serigne Touba limu am nek ci lekk ko sun borom de defale muy magal fukki fana jur ñet ci wéru safar danañ ci sun borom yóbbu ak jàmm ñu dem tay jamm delu sek jamm yoon yu seddu gu yu baña am yenn ndog sunu borom de defal ñu li bëgg lepp da lañuy wuti lepp sun borom de defal ñuko ñu bayyi fi jamm fekk fa jàmm ñi ñi ñëwaat fekkat fi jamm ci kër yépp barke Xaadimu Mustafa sunu xol dafa sedd ndax Mamadou jeng wax dëgg yàlla day day sunu mbokk day day sunu mbokk sunu doomu ndey ndax ay wajuram soxna Salma nag soxna Seck da dañoo fonkoon lool amub cër ci sëriñ bi loo sunu wajur di waaw ñu baax ci ñoom lool di ko defal lu ne loola sëñ Mamadou Dieng bi di di ko dundal di ko dundal ba gis ba nga xam ne nii ca ca ko doon ñaanal wax naa ko fii daaw ne teraangaam moom moo fa jiitu kon loola dafa rëy ci ñun lool ñaan sun borom guddalu fanam li léeg-léeg bii muy def dafa rëy lool ndax Serigne Touba loolu la gënoon di def joxe wu ñam ak joxe joxe séer dafa dafa rëy ci lislaam lool dara kawewu ko ak dimbale ko kooku ñi nga tane te ca loolu sun borom defal na la ko. di di sant mbooloo mi fi teew lépp ndax ñi fi teew ñëpp fi mu ne day na ni yaakaar na ñu ñu leen fi teewal waaw bu ñu sañoon ci waa Xabaan gépp te teew fi waaw Assane Thiam mais ñu àndal ak ak xale yu ñu àndal ji ji jigéen ak sama soxna si maanaam danoo ne ci ay xat-xat réew ma ci ci baykatum aar bi rek diggante bi ak màggal xam lool ba tax na ñu neexute kii rek ñu nekkoon dinañu ànd ak mbooloo mu bari ndax lépp sëriñ sëriñ Momar Dieng jaral nañ ko te mën nañ ko faa amee tim nag mën nañ ko faa amee nag kon bés bi yàlla nañ ko fekk ay yaa yu bare bare bare bare te lépp luñ ci ñaan sunu borom nangul ñu ko sunu borom guddal saw fan yokk sa biir barkeel sa sa sa njaboot barkeel sa sa saalal bi jaay xadim Mustafa sallallahu taala alayhi wa sallam ñi nga sant bu baax di sant ñu ñu teewlu rek ginnaaw bu nu jàngee ginnaaw bu nu mosoo ci seen jàng Fatiha def ayatul kursi ina ansal naan xul wallahu falaxi na salaatu ala nabi bu jàppandi ñu ñaanal sunu bopp ñu ñaanal ñi nga xam ne ni maanaam ñoo ñu jiitu sunu borom yërëm leen te sunu borom ñeewoon te ñu ñu yàgg fi lool di leen ñaanal di leen ñaanal bisimilah bisimilah monsieur Talla Diop xam nga euh, ni nga ko waxee conférence bi mooy 13e édition bu arc di organisé muy volet boo xam ne dina am volet religieux ndax ñun du ñu rek affaire politique loolu taxul ñu ànd euh, fii ay kilifa ji ngi fi. Eh, ay chef de village ay puisque Serigne Mbacke Mbacke yaa ngi fi soxna Bintu Aydara mi ngi fi ay bonne volonté yoo xam ne Afropod sax du suñu waxatuñ ko presque boo seetloo ci biir xanaa wëllëree dem na ba nga xam ne bu wootee jotee am nañu ci bari dañ may woo sa naan ma fu ñuy sànni ndax ñoom dañoo jàpp ne ñoom eh, ñi fi ne sax xàmme wuñ leen man daal la ñu àndal fu ma féete foofu la ñu féete fu ñu ma féetewul féetewuñ élection yi passé am na ñoo xam ne fajar lañ ma téléphone ne ma kar fan la ñuy sànni donc lolu moy woné un peu esprit bi nga xamné mo nek ci arc-en-ciel du nekk dañu and ànd politique ndax bu don lolu la xam nga kon tas na te tey la ëpp doole alors comme édition bi ñu def dañ koy ñu bari dañ ko tuddal wajalu magal 18 safar ndax fi mu ne fii ak une semaine dañuy daal dem Touba donc bu ñu dem Touba nag dañuy baaxoo di gisee suñu biir di am ay yóbbal yu ñu am suñu xam dañ koy am maanaam boo gisee daaw jaari-jaari Serigne Touba la ñu waxtaanee jotaawu sakku fi Serigne Touba jaar yëpp ci yoonu géej gi fi mu jaar ak Touba bi moom la Serigne Fallou Bousso waxtaanee. Eh, jaat taalibe yi seen too xol yi gën a tooy ñu gën a sawar gën a fàttaliku ko yi waajal mag ren ñu ne nag daanu yi dafa bari ndax ku jóg bu wër jumaa def nii eh, sëñ tubaa gént naa ko am naa nangamu sëñ tubaa tey sëñ tubaa di dund wàllu taw laa nga xam ne maanaam wéetal yàlla da ko musula booleeg dara taalibe nag jóg rek fas yéene nag gën a développé daal wàllu daanu gi waaw bàyyi njàng mi xam-xam gëstu xam-xam wéetal sa borom allah bi xeet yooyu aspect yooyu moom la ne woon nañ ko développé mu doon yóbbal boo xam ne dañ ko yóbbaale ci màggal parce que waxtaan bi am na solo waa ji sax jox nañu sax ay ay ay ay ay naafi la ak i wér ndax da gis koo xam ne day jóg fii tey di màggali huit heures lay jóg dugg oto bi tisbaar ci bi la koy fekk du ko julli takkusaan ci oto bi la koy fekk du ko julli timis ci oto bi la koy fekk du ko julli gée lay egg sonn xëy na bu demee sax day këpp këppal xëy na juróomi waxtu yi di farata xëy na du ko def di topp loo xam ne xëy na sunna la wala loo xam ne Sëriñ Tuubaa du ko digle woon yooyu yëpp ñu la di ci réfléchir est-ce que loolu moo tax l'islam jóg am na ñoo xam ne bu ñu demee dañoo waaye du ñu naafile ñu war a def duñ ko def xamuñu sax lu ñuy wax donc yëpp ay manquement la ay insuffisance yoo xam ne léeg-léeg dañ ko a waxtaane nag ñi ci yeewu yee ñi yeewul te loolu la kii ñu ne tey mu Cheikh Awa Balla Seck loolu la wax ba digle fi ay naafi la gis nga juróom-ñaari sept yi 7777 li mu ci digle dew baatu laa ilaaha illallaah kalimatul haqq ñun loolu mu ne loolu boo ko defee sa yaram araamal na safara te xam nga baat bu dafa yomb loolu yëpp jëlee nañ ko ci conférence bi donc conférence bi jokkuk eh, mbokk am ñoo xam ne bu ma leen gëj a gis daa leen gëj a gis te gis naa leen donc jokku mbokk da ci am ñu boole ci nag def ko boole ci fi cekkeen nag léeg-léeg ñu am nag suñuy affaire yoo xam ne dañ ci parce que yooyu ci la bokk day tax mu gën neex donc loolu mooy sens su conférence bi vraiment affaire mbokk la affaire xaritoo la tudduñu fi politique benn yoon waxuñu gouvernement waxuñu Macky Sall waxuñu Ablaye Wade waxuñu kenn waajal rek màggal ga leen def loolu nag mooy artisan waaw xam nga jamono yi ñu toll nit ñi yeewu neexu leen am na yoo fi ne boo doon wax ci yàlla dina wax sëñ Tuubaa lu mu daan julli naafile yam daan def intéressé wu leen daanu yee leen neex sëñ Tuubaa julli na ci géej gi moo leen neex waaye lu tax sëñ Tuubaa dem di julli ci géej gi boo leen koy doon du intéressé wu leen xasida yi xasida yi nga xam ne mooy xari xasida yi tawhid koo ko ci laaj parce que du ko xam mais xasida yi kiraama yi lu mel ni xaatimati munajati bil xatti ci sëñ Tuubaa di wax naan moom mu ngi déyanteeg boromam di wax ay kiraama yu ko yàlla defal façon nga xasida yooyu moo leen gën a intéressé mais sëñ bi li mu bind ci ay diiwaan dafa bari li mu dund mag ñi fekk duñ ko nettali dafa bari yoonu géej gi sëñ Moussa Ka li mu ci wax bari na ba wolofal mais gaañ duñ déglu yooyu daanu leen neex def seen i kuréel seen pancarte on gis nañ ci échantillon tout à l'heure ah boo demee xëj na sa julli wuñ tàkku sa julli wuñ timis julli wuñ kii ñi ngi fekk ñi ngi waxtaan di waxtaan ci diine bay def ñaan waaye teewul ñi ngi def li ñi wax li ñuy wax te du baatu alxuraan. ma ba bàyyi ko sama xarit lo ñi ma bokkaloon soos ak cancer ci la bokk danaan ñëw na fii Thiès ba taay seede yaa nga fi ñu defee mobilisation bu mag ci mairie boobu ba la ñu jàppale Idrissa Seck du ma ko fàtte mukk ak Khadim Samb Peex Ndeye Mbaye Diène ma ci ñu bari dañoo yaakaar ne ak cancer ñoo xam ne toog nañ si ne xëy dañuy tas ak cancer ma leen xam leen li ngeen wax ak cancer bi ñëw fi dafa sotti ba noppi man wax naa lu ma am ci lu baax Thiès laa ko yóbbu damaa defee ak cancer Dakar ba mu baax ma duy soxaana ba mu fees dem Paris def meeting au Bataclan Idrissa Seck Idrissa Diop chanteur suma sédel Ablaye Mbaye l'aveugle suma sédel la jox na ko mo prestation koku bo amé di passeport diplomatique man ma tax mo am ko man ma dem ci Pape Diop nako nako wutal passeport diplomatique parce que moko wutal ma awma ma dem ci Pape Diop ñu wutal ko mo passeport diplomatique ma awma passeport diplomatique ma nga ngey jël yalla duma ko neel man ma tax mo am passeport diplomatique ma nga fo Fatou Guewel def na fa prestation le Bataclan bi gaañ a attaqué bu yàggul saa neex maa ko yóbbu Paris mu def prestation Bataclan donc man ku ma mën a mos a mën a dimbali rek dimbali naa te yàlla tax utuma ci leneen. bi amé incident Mbataakalaan dama téléphone dama lay dama Mbataakalaan bi ñuy wax naan mom la attaquer terroriste attaqué ba eh, ngay fa ay téméri nit ndax moy Mbataakalaan la bañ demoon barko moy bañ demoon té duma ko damo invité na eh, politiciens yépp ci émission man duma invité musuma ko wo da loolu taxu taxu maa ji muy saa nekk sama nun du ne politique ndax ko bil watani min al iman loolu yalla bëgg sa réew ci yaamu yalla ya, ya, réew mi nag bëgg nañ ko fi lañu bok té te am luñ fi xam moo tax léeg aussi dana situation yoo xam ne bu amee dañ jox loon xalaat waaw waaye maanaam politique bi du loo xam ne moom moo ñu jiitee la waaye nag mënoo nekk ci dëkk te ne li muy doxee amoo ci benn xalaat loolu mënul nekk waaw Abdoulaye Wade moo njëkk a def programme de modernisation des cités religieuses xam wax mbaaxu nit wàññi sa mbaax dara moom fi Abdoulaye Wade yemoon dafa ko yokk man Abdoulaye Macky Sall bu ñëwoon ne Abdoulaye kër fii la yem xëy na am na erreur bi erreur bi bi nañu jubanti li nañ defaat li nañ yokk lii mais kon man premier ki koy njëkk and ak mom euh, soutenir ko man lay do ndax man koko xam la mo Macky Sall da ñew sama kër soxna Mariam Faisal koko xam la daf ma xam bu ma séenoo fi dal Mamadou Dieng Macky dama ko xam ñu collaborer cellule des cadres du PDS man ne yoyon ko commission politique moom mu nekk président bi lu ma xam Fatick Macky Sall moo tax ma xam lu ma xam rek quartier fa ne ay Louga ndéem ak pël gaag li la ma fa xam Macky Sall moo tax ma xam ko nag ah comme nun boolewul ni ngi toog ngi toog di di déglu ak garder suñu ngox est-ce que ñoom euh, am na ci ñoom ñu ma xëcc am na ñu ñoo xam ne ñëw nañ la wax dëgg yàlla nag ci man mhm. Abdoulaye Daouda Diallo ministre de l'Intérieur woonam Augustin Tine dafa ne woon day ñëw sax fii maa ko ne bàyyil man ma ñëw Fandène ndax xaw ma village te bëgg na maa xam village ba may dem maa papa Thiam yi ñëwaat mu recevoir moi aussi très bien ne ma defal meeting de ralliement yow da ngay ñëw jàppale président nangam na mais man sama interlocuteur Macky Sall la c'est des personnes d'autres Mahmoud Saleh ñoom nekkoon renouveau bu démocrate jibokaay mi ngi wax ne maa ngi koy tudd maa Mahmoud Saleh ci ci keppaaram lañ nekkoon waaye te ma fàtte démb de. kon ñoo écarté ah écarté naa ko parce que moom écarté ko xam nga léegi dem na mandat bi parce jeex na lu ñu daan dundee lu béy daan dundee ba am sikkim man na ko dundee kañ ba wuji yàlla léegi mandat bi lu des deux ans fi mu ne day wuti waat fi mu ne bëgg na mbooloo fi mu ne ku dem mu fat la de fi ne parce que bëgg na kut ko kut faluwaat waaye ba ñuy tàmbali na gaañee yokk seen kii teraanga ju noonu am na ñoo xam naa la ñoo xam ne bu ñu daan tase ci mbedd ndax ñoo yaakaar ne yow da ngaa bëgg a ñëw yóbbal bi daal mooy màggal fii na moom xisa bi mooy màggal nañu arrêté lépp ñu ñu ñu waajal màggal gi dem ak jàmm ñëw ak jàmm sëñ tubaa na li mu wax nee na sama màggal gi ko ma ko màggal xéewal yi ma jëlee woon sama yoonu géej gi danaa ko bokk ak yow te ñëpp xam ne sëñ tubaa jëlee na fi ay ay xéewal donc man yaa ngemba taalibe yi ñu waajal màggal gi occasion nga ma jox bëgg naa incha allah bu déwénee moom sama nit ñi maa leen di daloo ci Touba damaa bëgg bu ñëwee nit ñi di dalee ci yeneen cheikh yi ndax léegi damaa bëgg doon cheikh bu mag cheikh murid bu mag laa bëgg a doon damaa bëgg ñoom ñëpp ñu ñëw ne ku jógati ne maa ngay dal ca kër cheikh a Dieng waaw loolu mooy loolu daal laa bëgg ku ne nga ma fasal sa loolu yàlla yeggale ko ci jàmm ren moom xam naa ne jege na ba noppi waaye bu déwénee